ne mauvais souvenir parce que aussi léegi moom alhamdulilahi rabbil alamina euh, tout l'étendue du territoire national amul fenn foo xam ne tey dañ fi wax soble waxuma laa Touba bi tey parce que bi nga xamee ne problème soble bi am na te du du muy li nga xam ne facteur bi ko waral mooy pays yi nga xam dëkk yi nga xam ne ñooy defar soble dañu téye li am pour dundee ko li may wax rek bala ngaa laax jaay nga laax lekk loolu mooy indi pénurie bi c'est-à-dire Euh, cohabitation bi moo am problème ren bi ñëwee di bi béykat yi di di di jeexal seen produit fekk ñi nga xam ne ñoo ñu daan jox soble téye seen produit loolu rek moo am moo am espace bu ndaw bu tax tey yi am. képp koo xam ne kii tey da nga doon jéem a ndam bu soble pour pour mu am pénurie am nga problème parce que soble moom du lu ñuy denc soo ko dencee mu yàqu kon maa ngi lancé appel ci sama commerçant yi nga xam ne ma ñi nga xam ne dama leen administré ak ñi su ma waxee ñu dégg ñu jaay marché bu primé. bu ñu denc marchandise bu ñu def fraude bu ñu def contrefaçon soble bi moom nee na gàññe ku ko ciy denc dangay am problème parce que li nekk port rek jëm si waa Touba kenn xamul nu mu toll. vraiment kon na seen xel dal so non solement soble mais lépp lu ñuy soxla ci daara de prénicité nee na gàññe Touba koo xam ne kii da xalaat mu manqué ba nga di ko nëbbu booy ba nga fatu